حسن الإله kon nag ñu ngi ciy gën ñu ngi sakk ci góor góor mu taxaw ñu ci soññ ñu ci baax ndax lu ñor sëriñ bi la lu ñor njaboot gi la ni ko noonu yi yi ni soxlawaatu yëpp moom wax yàlla am na ci yaakaar ndax fii moom min nañ fee ñëw yàgg nañ wax ba na yaakaar naa ne li ku la nga waxoon danga danga taxaw ba bu ci eggee nga def ko fi ko bëgg mun eggeewaatee ca daje bi nga xam ne moom moom la ñuy dajewaat foofu ca Tuubaa kër gi nag ñu ñu door a xam nu ñuy taxawee wàllu électricité tam ñu ngi ci taxaw bu baax bëgg nañ ku ñu ci dimbale bu baax ñu ngi koy wax monsieur le maire sonn na ci màggal gi lool ndax lu dëkk li daanaka loolu dëkk moo nu a yem. Hmm. waaye ñu moom mbedd nga xam ne mooy mbedd mi jóge ko sëñ Abdou Khadir comme seen seen la ñëw si ñëwut moom soxla nañ ku ñu ko defal lamp bi amagatal yu baax yi tàmbalee foofu moo jëm jëm ko corniche ba lëndëm na lool. waaye piir yi fay defar yàlla daanaka bu dee moom du jaar defar ndax balaa mat fukki fan yëpp lakkaat ba daaw moom man mii maa mujj am naa maa mujj jënd piir bu ñu ma ko monteel loolu ci li nga xam ne li gën a ñor suñu bëri ci màggal gi màggal gi nag ki ñu màggal muy Cheikh Abdou Khadir Mbacké moom duñ ko présenté kenn ñëpp xam nañ ko ngi nit koo xam ne nitu ab sunni la woon di bu mu tasawif nit koo xam ne dundam yépp da ko tegoon ci fi yonent bi sallallahu alayhi teg tànkam moom rek la tegoon tànk moom rek la tegoon bët di ko xool ba ñëpp nangul ko ko mu ne koo xam-xam ne ab suñu yu mag la kooku la ñuy mu nit ku dëddu woon adduna itam yàlla dimbali na ko ba soon na waajal dara ngir adduna woyofal adduna lool nit ku bëggoon nit ñi ku bëgg mbokk koo xam ne saa saa fu mu toll ngi dul di seete ay bokk li nga xam ne moo xa jafe léegi ci jamono ji noonu la moom moom la defoon ab itam ku mu gëj gis sax ci bokk yi wooy woo la nga dikk moom kon nag kun bisam kun war a ñun ñi nga xam ni ko gouverneur waxee léegi fii dëkk jamono ji mel léegi ñu wax ji bare surtout ci xale yi ñàkk discipline bi lu la neex wax lu waaye neex def loolu gaa yu baax yi ñuy màggal nag lan dama war a fàttaliku ci ñoom xool nañ daa doxe ñu ci jéem a roy sëñ Abdou juróom ñaar fukki at ak juróom li dégg mu wax mooy bi mu doonee xëy na dama waaye bu dul loolu mos sa am baat mu sa wax dara ci topp ci ginnaaw kilifaam si Abdou Lahad Mbacké ak kilifaam yi ko jiitu woon rek la noonu fu ñu jëm lu ñu wax moom lañ wax lu wax waxu ko yoon woowu nag mooy mooy li nga xam ne ci la yoon wu daa doxee naka jàkk doonul ne ku neex nga wax doonul ne ku lu waay neex wax benn baat moo fi war a am kon nag nañ ci góor góorgóorlu wax ñi nga xam ne ñuy sunu sunu doom yeeg sunu jarbaat yi yi nga xam ne ak sunuy rak ñoo toll ci wax yaakaar ne wax gi am na njariñ wax moom amul njariñ bi lu muy yàq mu ëpp lu muy defar kon nag nañ góor lu baax jëma roy ci sunu kilifa yu baax yooyu nga xam ne ñoo fi jàlloon ci toppante te déglu ndigal tey mooy tere te moytu média ndax léegi média dafa yomb trop koo wax rek ñu ne la nga foo wootee ñu si la jox la micro nga wax te boo waxee wolof Njaay boo wax xasee wax nag moomu sa bopp nag nan ko gën a moytu baax a baax xam ne ñi nga xam ne mooy suñu waajur yu baax yi fi jógoon leen waroon def lépp def na ko kenn mosu leen dégg si leen seen kàddu kenn mosu ko dégg kon nag te bu doon amoon njariñ wax am njariñ ñoom fu ñu toll wax kon nag nan góorgóorlu ci jëf te topp ndigal te mooy ay daal mooy kàddu yi ñu daal ñu ngi sant góorgóorlu bu baax di sant mboolem mboolem ñi nga xam ne ñoo service yi sant ñi nga xam ne ñoo leen nga xam ne bu magal di xasee ba ñëw ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen liggéey bàyyi seen soxla xëy nekk ci lu lu jaga bis ñëpp ñu leen sant ci turu sëñ Cheikh Mbacke ak turu njaboot gépp ñu ngi ñaan yàlla ñu egg te bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñaan ci barkeb sëriñ Abdou Khadir lépp lu wa képp ku fa ñëw lu soxla soo fa indi rek yàlla na ko yàlla faj ci barkeb borom bis bi ràgga ju fa waaye indi yàlla na ko yàlla saal ci barkeb sëriñ bi ndax ku ne xam ne ne sëriñ Abdou Khadir moom ku dégg woon borom lu ba daana wax na dana ñaan léeg-léeg wér ne ko sunu borom dina ngoo da ci am kàssa xam na nga koo waxe woon ca ba mu koy ñaan rek noonu la ko sunu borom dina ngoo ak agsee bisu ñaan la waaye bisub bisub toroxlu la kon nag nañ ci am pësee bu baax ci fas yéene ñëw fas yéene teew bu baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum waa kër Ndeye Elimane yaakaar naa ne yombul nekk Elimane ba jóge fi seen njaboot ñi si tànnaat Elimane si tànnaat porte parole yaakaar naa ne yombul lépp rek day wanewaat taxawaayu sëñ Abdou Khadre ba mu fi nekkee liggéey bu rafet bi mu liggéeyal borom bi di sàqaat rek comme neen ko ni ko waxee sànq bésam bésu ñaan la yàlla defal ñu si ngëneel li xam gën pour Sénégal ngëneel li également pour président de la République xam ne moom lañ dënk réew mi ngëneel gi pour euh, jawaat gi yëpp ñun ñi xam ne ñoo si ànd ak yéen tamit yàlla jox ñu si ngëneel yooyu baax yi mu baaxee ki xam ne liggéeyal nga sëñ Tuubaa baax yi mu baaxee ki xam ne liggéeyal nga sëñ Tuubaa si bésu sëñ Abdou Khadre bi ni wax ne dégg nañ seen i bu baax ci fànn yi ngeen ko lim yëpp commencé si wàll sécurité bi comme mooy base lépp xanaa ni ko commissaire waxee cent barrière yi ñoom am na cinquante yi déjà yi euh, am na trente gémi bi ñëw mun na indaale ay barrière donc yaakaar naa ne cent yi moom war na mën a yomb li des nag liggéeyu coordination la parce que même éléments yi ngeen wax tamit cent cinquante élément yi ngeen wax tamit c'est que mën nañ dem sax lu ko boo boole li nekk Touba déjà ak ay éléments yi nekk Touba déjà ak renfort bi xam ne dañ ko am mun na romb sax loolu mais comme wàllu sécurité souvent ni ñu koy waxee da ngay bàyyi ñi xam ne ñoo ko yore ñoom ñu apprécier ko xool nu ñu ko war a doxalee euh, mais li si sim laaj rek mooy coordination bi donc ngeen nga désigné comme ñu ngi jëm fii ak ñuy yegg si réunion variation bi ngeen désigné koo xam ne mooy nekk seen jawriñ si wàllu si wàllu sécurité ñoom it am nañ koy coordonné si wàllu sécurité bi ñoom ñaar bu ñu continuer di ànd rek ñu wax yan béréb lañ bëgg service bi yaakaar naa ne def ko dina yomb amuñ vraiment problème effectif amuñ ko côté Touba donc léegi li def mooy xam fan lañ ko war yóbbu ban waxtu lañ ko war a yóbbu hmm. coordination bi daal je pense que moo si gën a bëri que problème effectif nekk amee point focal boo xam ne moom la ñuy àndal di liggéey rek je pense que dina yomb waa tamit ni ko daan defee dinañ si ànd ak yéen ni mu ko bëggee tamit comme jamonoy nawet la installation yi ngeen di def sécurité incendie mais sécurité également courant bi masse ak yooyu mën na si am donc dina soxla effectivement ñu ànd ak yéen si installation boobu ba xam ne bu ñu ko defee kenn dafa courant dafa mën a indi benn jéyee euh, gendarme yi également dinañ jël seen disposition pour yombal nit ñi si yoon yi fu ñu war a renforcer effectif tamit si biir Touba dinañ ko def mun si ànd ak police si wàllu liggéey bi c'est vrai que zone police la si yëpp mais si biir gendarmerie gendarmerie tam dina am circulation dina am sax peut-être ñoo xam ne fa la ñuy màggalee hmm? donc gendarmerie tam dina tas élément bi si biir dëkk bi pour ñu mën a accompagner police si wàllu liggéey boobu. li ngeen wax si wàllu hydraulique tamit dégg nañ ko bu baax euh, nombre de citerne yi nombre de bâche yi dinañ insister ak waa OFOR ñu delloo ñu noonu seulement li xam ne moom la ñuy jàppalee temps yi Dakar si problème yi fa am. mais ñu delloo ñu ko mais ñu yokk complété ñu sax pour que nombre yi ngeen demandé muy 5 ak 10 5 citernes 10 bâches ñu mën ko matal incha allah dinañ si insister ak direction OFOR mais kaaw Touba Bagdad bi tamit kooku teg moom moom jar na taxaw lu ñuy wax taxaw seetlu ñu koy wax xamalal bu mat vraiment xool techniquement ce qu'il faut faire ñu mën ko régler parce que quand même penc la boo xam ne mënuñ ko bàyyi noonu mënuñ ko bàyyi noonu foog ñu taxaw si vraiment trouver solution màgg gàggal lañu am pour que bu ñu demandee ay expertise wala ay moyens vraiment ñu mën ñu ko indil donc nañ profité si màggal gi vraiment ñu ne màggal si Abdou Khadre moo taxaw soo ko waxee autorité si la lay gën a déglu bu nekkee beneen temps bu dul temps màggal vraiment nee na màggal ab si Abdou Khadre lañ jëm nañ si taxaw pour que kaaw Bagdad ñu mën ko régler parce que ñun ñaar dinañ si ànd liggéey ah ak kilifa yi nekk si Dakar ah parce que ñooñu si mën a jàppale pour que ñu mën see am solution mais taxaw jot na kay jot na ñu am une solution définitive su dee équipement yi ñu war defaat ñu def ko su fekkee équipement yi fa nekk mat na ko mais peut-être disposition yi ñu ko tegee moo kiwul techniquement moo tax mënuñ si trouver solution ñu xool techniquement ce qu'il faut faire mais jot na daal jot na quand même ñu mën a jënti problème boobu si wàllu courant bi tamit jël nañ note je pense que 10 branchements provisoires ngeen a wax groupe électrogène également ñu defar éclairage public bi si li jëm euh, Bagdad ñaari Bagdad yi un ak deux Guédé euh, chantier bi ak résidence bi également mais yoon wi jógee également résidence jëm baax ya jaar ci kër sëñ Fallou ak sëñ Moustapha cinq postes avancés itam nañ ko neen ko demandé incha allah dañ leen ko defale noonu waaw quatre ambulances yi tamit neen ko demande dañ leen ko defale noonu croix rouge tamit dañ ko impliqué comme ni ñu ko ni ngeen ko demandé si wàllu santé li des mooy kër yi ñu war a désinfecté je pense que maire yi dina joxe produit bi mooy 60 litres produit essence bi tam ngeen set donc entre service bi ak maire bi ni ñu ko mën a assuré 150 euh, résidences lañu wax pour ñu vi defee leen euh, désinfection avant le 17 je pense que effectivement foog teel ko def daal balaa nit ñi di ñëw keneen ñëw cent villages yi léegi 150 cinquante pense que diggante ONAS ak maire yi wax dëgg yàlla mën nañ ko jàpp et même mën nañu dem sa peut être de 200 bi xam ne moo leen demandé. pelle charge sable itam dégg nañu li si maire wax pelle mécanique bi tamit dégg nañu li si maire wax. wala inondation yi tamit dégg nañu li si wax vraiment hydrocœur yi xam ne soxla nañ ko pour ñu mën a jël ndox mi euh, déjà sous préfecture c'est réglé donc li des mooy buntu maire bi Sonatel je pense que loolu tam dinañ ko lijjanti. waa Sonatel donc euh, dégg li ngeen wax ci deux lignes yi ñu changé leen également ngeen toppatoo pour troisième ligne bi eles LS notamment pour que bon ñu mën a compléter je que li def deux yi mën na war na mën a def trois yi ñu ngi leen ci xaar dëgg nañ 80 bâche ngeen wax tamit ci wàllu logistique loolu tamit ministère de l'intérieur moo joxee bâche yi incha allah dinañ leen saisir dinañ saisir pour que ñu mën ko joxe autorisation coupe donc te loolu nañ ko ak eaux pour que ñu mën koo génne rapidement ñu si parce que léeg-léeg tamit loolu da si am donc autorisation bi day yéex a boo xam ne <laughs> màggal gi dina voilà voilà dina weesu quoi <laughs> voilà voilà donc ñu teel ko def daal balaa balaa balaa ñi xam ne ko soxla si màggal utiliser ko si màggal gi te xam ne bu weesoo tamit njëriñ bi dootul bëri hmm. waaw waa commerce waa élevage waa douane tamit ñu ngi leen di sàkku li ñu doon sàkkoo rek contrôler qualité bi produit bi muy yàpp di wala di yeneen di contrôler également am na approvisionnement bu normal mais douane tamit yombal nit ñi pour que ñu mën a jàll ñu xam ne vraiment dañuy ñëw pour màggal si yombalal leen jàll jàll bi ah. ni mu leen ko joxee itam numéro bi tamit fu amee problème euh, kuy ñëw ku mu amee problème ngeen wane leen. incha allah ñooy jàpp si taxaw si. ñu mën a circuler normalement. en tout ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ñu ngi lay gërëmaat bu baax si bi wax yàlla ñooy ànd di liggéey at bu nekk. mais liggéey bi yombalal nga ñu ko bu baax a baax a baax ah. ñun tam dinañ def effort vraiment pour que tamit li ngeen soxla si apport état bi ñu mun ko indi. ak euh, ñu félicité également di gërëm mairie bi également. ñoom jàpp nañ si bu baax taxaw nañ si. dinañ si remercier bu baax comme ni ñu koy daan defee at yëpp vraiment ñu taxawaat si noonu. voilà je voudrais remercier donc euh, euh, les uns et les autres les, invités à ce CRD, CRD consacré au Magal de باسم الإله